ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax ci sunu people TV ñu dikk ak ci xibaar bu tiis xibaar boo xamante ne mu ngi bàyyeekoo ci euh, internet bi site yu bëri daal di koy reprendre ci ki nga xamante ne moom moo di euh, Mama Absa ñu gën ko xam ci Mama Absa bu Sen TV waaye itam ci Mama Absa boo xamante ne nekk na actrice boo xamante ne woon na ci ay série yu bare bare série bu ci mel ni série bi nga xamante ne Pape Cheikh euh, doon na ko def mu doon daw foofu ñu dippee ko double vie mu nekk nag naqar ak tiis boo xamante ne léegi la dal ci kaw ñi lee di euh, acteurs yu Sénégal yi ak actrices yi waaye tamit ci le monde de la culture kon nag kii di Mama Absa ñu ngi koy euh, jàll képp koo xamante ne animateur nga képp koo xamante ne animatrice nga rawatina ki nga xamante ne moom moo di euh, Pape Cheikh Diallo bu télévision Futur Média bi nga xamante ne bokkoon na ci série boobu nga xamante ne doon na ko def foofu ca télévision Futur Média mu tuddoon double vie waaye itam di ko jàll ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa groupe des médias ñi nga xamante xamante ne tamit yàggul dara daan na fa def émission boobu nga xamante ne daan na daw ca Sen TV mu nekkoon émission waxtaan mu ci daan ànd ak présentatrice yooyu nga xamante ne ñoom la daan liggéeyal kon nag mbokk yi xarit yi ñu ngi leen di gërëm ci teewlu bi ci sunu People TV di ñaanal nag kii di Mama Absa bi nga xamante ne léegi la ñu yëgal génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm te yéexe ñu di ko jaal ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy acteurs yeeg actrices yi artistes comédien ak artistes comédiennes yi nga xamante ñu ngi ci biir réew mi ak ci bitim réew ndax gis nañ ne nag jamono yi photo bi ngeen di gis nii ñoom ñëpp ñoo ko partagé ci réseau sociaux yi kon nag mbokk yi loolu mooy àdduna àdduna moom demal maa ngi ñëw la moo tax nag lépp lu ñuy wax ak lépp lu ñuy def rek nañu fexe mu rafet gannaaw kenn dëkku fii ñëppay euh, dem ca sunu borom daal di dellu kon nag dañu ko rafetal tey waxante lu baax ak di jëf jëf ju baax mbokk yi xarit yi woy leen di abonné ci sunu people tv jërë ngeen jëf